une chaîne de télévision culturelle et religieuse. Rafah TV ñëppay dañ agréer. A'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim. Bismillahir rahmaanir rahiim. Laqad sami'a Allahu qawla allaziina qaaluu أغنى الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكل النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزور والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قولكم من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عظم الأمور لقد أخذ الله ميثاق ولقد أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس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 ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم inna allaha la yuhibbu man kana qawwana nasima يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم الله وهو معهم يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الآيات الدنيا الدنيا فمن يجادل الله عنه يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه خمسا ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اسما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا حسبك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 بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من زورهم ذريتهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون حسبك صدق الله العظيم أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله وما توفيقي إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وخير قديمه وأمته وسلم تسليما mbokki jullit yi mbokki taalibe yi suñ bokki dëkkandoo yi suñ xarit yi suñ wëlëre yi am yi ñi safoo alquran ñi dëkk ak ñi nga xam seen dund gi fas nañ ko yéene jox alquran noo ngi leen di wax kàddu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa bi nag maa ngi koy jël di ko teg ci loxob kullu sëriñ daara. di ko teg ci loxob soxna Anta Sey mi nga xam ne muy way wayjuru daa ndongo daara daara ji di ko tegit ci loxob képp ku yëngu ci daara ji muy sëriñ si nga xam ne ñoo ngi ànd ak ñoom liggéey bi ak soxna yi bàyyiwuma kenn ba ci ñi ci wàññi nuyoo bi maa ngi koy teg ci loxob képp ku fi am tu tànk di ñaan sunu borom tabaaraka wa ci barkeb weer wu sell wu tedd wi ñu nekk muy weeru safar nga xam ne mooy weeru màggal suñu borom barkeel sa njaboot ak fu mu mën a nekk ci daara ci réew mi te àggale alxuraanam ba nga fekkee njariñam kàddu yi xam naa luy tënku rek lay doon ndax waxtu wi xat na te dese nañ waaye nag balaa ma jàll ma sant sëriñ ma sàmm Ndiaye moom mi nga xam ne léppam daf ko jox alxuraan ak sëriñ Euh, Omar kan Balla Aïssa. sëñ Daara. sëñ Daara sëñ Omar kan sëñ Daara moo ne sëñ Omar man de bi may enregistré sa numéro sëñ Omar kan sëñ Daara laa enregistré wallaahi alazim boo ko ubbi woon moom ko cay fekk waaye sant mboolem ñi mas a àndal liggéey bi moo xam jamono ji ñi ngi fi wala nekkatuñu fi maa ngi maase di sant ñëpp ba ci ñi fa nekk jamono jii may wax ak di wax ne ñoom day du ñu yendal du ñu fanaanal xamuñu mi ngi taw xamuñu mi ngi naaj xamuñu mi ngi ngelaw seen yitte yëpp jox nañ ko daara ji te day mel ne sax jamono yu suñ jëmm fàddoo ci la ñuy gën a am himma bu mat sëkk ci liggéey bi ndax seenug ragal yàlla kon ñooñu seenug pay kenn ku dul suñu borom tabaaraka wa taala amu ko yàlla yàlla fay leen ngeen ngi fay te nag man amila saalihan fali nafsi yàlla mi nga xam ne moom la ñu liggéeyal di sàkk ngërëmam yàlla na yàlla gërëm leen te boole ko ci barkeb Sëriñ Saliou mu ñu doon liggéeyal ba tax na du fi nekk di lim ay tur ndax suba waaw war na dana dana waral njuumte soxna Anta Sëy moom moo yor kaddu waajuru ndongo yi donte juróomi minit la ñoo ngi sàkku mu sànni ay kaddoom xam ngeen ni day ba daara ji sosoo ba léegi at mu yàlla sàkk suñu def conférence dana xottil ñi nga xam ne ñoo wattu téere bi yàlla bi koddaay loolu mu leen safoo di leen ko wadd depuis 2005 ba léegi yàlla na yàlla waddal na ko te ku yàlla wadd doo rafle yal na yàlla guddal aw fanaam yal yàlla wéral ay cëram yàlla na yàlla sàmmal nu ko te wattu ko te xaar ko te musal ko ci lépp luy waral am ndog moom de ba mu jàppee ba léegi bayiwut yaakaar naa 2005 ak léegi ay at yu takku la ku doon yox yox yi deltu nga gannaaw bu yàgg waaye moom day xefut rëfut ma nga teg tànkam fa mu ko tegoon rek te sëqi jéego saa su nekk kooku nag amuñ ak payam dañ koy bàyyee yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba mu fayal la ko démb ci guddi rek la wàññi trois cent mille muy juróom benn fukki junni ni ko Serigne Massamba Ndiaye waxee woon sàng teg ko ci sama loxo li ma lii de xeeb naa ko daf maa fekk ci ay yitte waaye kon li bi dem ci bis bi lépp maa koy def loolu dara mënu koo fay wallaahi alazim tey lépp lu muy def yàlla yi kese tax mu ko mu di ko def weeru koor gi am na ci bis boo xam ne saa su accès mooy jox daara ji ndogu weeru koor wu mën a doon daara ji du def dara moo koy gàddul ndogu weeru dee wu nekk dana fi indi saako kër ñaari saako ceeb jamono ju nekk mi ngi jël aw ñaqam ak ñaqu ay bokkam di ko tàbbal ci daara ji ndax kat dafa am lu mu xam ndax way juróom bu góor ab jàngalekatu alxuraan la woon moo tax li muy jëf mu mën koo jëf ndax bariwaa na borom alal joo xam ne ay milliards la yor waaye suñu borom nattu na ko ba du mën a def benn dërëmam ci daara yàlla da koo xañ aw yiw waaye moom na yàlla xëñu ko aw yiw moom soxna tax na amuñu ak payam ndax maa ngi fàttaliku jamono ya nga xam ne daara ji dem na ba nar a tuxu Tuubaa ndax ñàkk barab bu mu nekk te moom yëkkati na ci kaw kaw gi agagut fenêtre yi amul ay fenêtre amul ay bunt mu ñëw laaj ma ni ma sëñ Mour ndax am nga foo mën a yóbbu toxal ndongo yi boobu daal di door a soso rek ma ne ko amaguma ko de ma wër ba gis genn kër gu nekk ca unité 12 jàkkaarloo ak jàkka ja sorewut ak fa sëñ Adama Seck nekk ma waxtaane borom ba ñu déggoo ñu déggoo ci fanweeri junni ñu war ko koy jox weer wu dee wu nekk mu ne ma ñaari weer nga joxe mu 300000 ma ànd ak ca loola ñu signé contrat bi ba desul lu dul ma war a ñëw ak dongo yi way ji waa ji ba nga xamante ne jox naa ko xaalis ba wan ko gannaaw rek bu waat ma téléphone ni ma looy doyee kër gi ma ne ko damay jàngale alxuraan mun ma sama kër du ma ko jox jàngalekat alxuraan da ngeen yàq kër damaa ñëw dafa mel dañ maa jam paaga ci sama xol wallahi alazim damaa tëdd di jooyu metti waaye moom mu wàcc ci ci këram moom soxna Anta Sëy li may wax day raqib mi sama mbagg mi ak xatiib muy kiraaman kaatibiina yi nga xam ni lépp lu waay wax danañ ko bind te moom xam na ni duma ab fenkat lépp lu may wax waxuma ko ngir ngir ngistal waxuma ko ngir dara loolu ngir jëmmi yàlla yi kese mu wàcc daal di ñëw tiim ma ñu ma baa am nga mën ko aw ma de waaye man daal xalaat na dell tuubaa rek jëm faa saxal daara di fa jàngale insha allahu taala mu ne ma sama kër gi ci kaw de aggut waaye man fu ma nekkoon ci suuf danaa ne ñokket yëg ci kaw dox la ci suuf wallahi alazim noonu la def kaw ga amul ay fenêtre toile di agut amul ay bunt mu dem dëkk ca ndànd fay fay ga ngelaw di ko wal mu jox ma ci suuf moo fat alxuraan wallahi soxna Anta Sëy moo fat alxuraan waaye de sunu borom waajalal na leen njëndi loo xam ne ca aljanna waxuma la yow ci sa jëmm waaye say bokk ak kullaal ci saw xeet wallaahi alazim du tàbbi sawara ndax da fat alxuraan dangaa ngaa fat alxuraan alxuraan nag kenn du ko fat sunu borom di la dëkkal feneen furul jannatul firdawsi yal nañu fa yàlla boole dëkkal ñun ñëpp jaahi nabil mustafa sallallahu alayhi sa borom kër bi jiitu muy Baye Mansour maa ngi ànd ak mu aw photo foofu maa ngi ànd mu benn photo sa jëf ji nga jëf yàlla na ko ci yàlla xool ba tabal ko jannatul firdaws waaye maa ngi sant waajur ndongo yëpp góor jigéen mag ndaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm it mboolem ku mas a jaar ci daara ji da ci xaadim ngay mi ma jëkk am ci ab donga ba ci tey jii donga yi fi mujj ñëw ci weer wii muy Cheikh Mahamadou Fadilou siise ak maam na Cissé yàlla na suñu borom boole barkeel ñëpp te li ñu yéene ci ñoom yàlla yàlla mottali ko waaye mënu maa jeexal tam gërëmuma sëriñ Modou Fall ku jàpp ci daara ji la sëriñ Yoro kamara sëriñ Basirou Fall soxna Khady Seck ku jàpp ci daara ji la waajuru Fama Cissé ku jàpp ci daara ji la maa ngi gërëmit waajur Alxaaji Boubacar Puy loxoom mës siggi ci daara ji jamono ju ne ah, jëfam ñaqam mi ngi tàbbi ci daara ji moom ak soxnaam di soxna Touré maa ngi gërëm it Mamadou Ly nga xam ni mi ngi yëngu ci wàllu politique waxuma ko nag ngir politique dama koy wax ndax ku la defal lu baax da ko war a wax machine bee ñuy liggéeyee ci daara ji moo ko fi indi boole ko 30 tablettes xale yi di ci taj wit xam ngeen loolu du ndaw. te jamono bu nekk mu ngi jàpp ci daara ji moom sëñ Mamadou Ly maa ngi koy seedal yàlla di sant sëriñ lemin kamara jëfam ci daara ji di sant waajuru maam Faatu Mbeng muy sëriñ Abdoulahi Mbeng ci taxawaayam jëfam aw ñaqam di sant sëriñ Basiiru Faal ak sëriñ Masayer Faal ak sëriñ Modou Fall xisbu ñoom seen loxo mësta jóge ci daara ji jamono ju nekk ñu ngi nemee ko daara ji di tàbbal seenu ñaq maa ngi santit sama bokki bopp yi di sant wëllëre yi xarit yi am di jàmm yi maa ngi santit dëkkandoo yi ndax daara dëkk ak moom yombut ku mën a muñ donga mën a dëkk ak daara ndax donga yi dama yàlla baal te baal tamit ay tooñkat lañ bu ñu màggee nag bàyyee ndax kenn yërewu leen ko muñal nañ ñu safoo nañ ñu faale nañ ndax bu ñu jëppalewul woon kon daara ji na gën a jugee na fi bu yàgg 2009 ba léegi du ay caaxaan te lañ nekkoon ci kër ga kon maa ngi sant gox bi quartier bi dëkkandoo yi ñu li wër daara ji wax dëgg yàlla xarab bu ma leen te maa ngi ñaan yiw bu ma ci amee yàlla ñu ko bokk. amiin si sa aalamiin. mii nag. mënu ma ko ñàkk sant mënu ma ko ñàkk a gërëm. te di ko ñaanal aw fanam gudd moom day wax dëgg yàlla bu nu amee ab barab ci Kër Massar gannaaw yàlla ak jëmmam ji bu dul woon moom day xëy na mën nañu am waaye feneen la ñu am te dana sori bu bu baax a baax a baax a barab ba nag yàlla dogal na bu ma ci doon tuxu tey jii nii duma ma fa xaj loola waral ba léegi mënaguñ faa dem am nañu yéene teg teg ko ci teg ci kawam buñ saa suñ tegee ci kawam ba mu àgg nag su boobaa insha allahu rabbi su àggee danañu dugg su àggul danañu dugg di defar di defar ba muy àgg fas nañ ko yéene insha allahu taala fas nañ ko yéene insha allahu maa ngi gërëm it sama soxna yi ma yàlla boolee gun boole la gun kon dese naa maanaam foofu da xam naa ni yëf yëg yi waaye benn ci des bareetul benn nga desee moo tax baal noonu rek yow yow sa mbir daanaka jeex na moo tax benn nga maa ngi leen di gërëm di leen sant wax dëgg yàlla ñu ngi góor góoru ci xale yi seen kéemtalaay kattan maanaam tey jii may wax ak rek aaw bi moo taxawu tuttànk yi ñu sangu ñaareel bi moo taxawu jigéen yi ñu sangu kaja Tuubaa moom. wax dëgg yàlla mi ngi sax ci suñu ndigal di bàyyi suñu dere di taxaw suñu waajur suñu kéemtalaayal kattan taman loolu rek laa bëggoon ci sama àddina kuy taxaw sama waajur ndax aw ma sama waajur ndax wa qada rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaana immaa yablughanna indaka al-kibara ahaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa wa qul lahumaa qawlan kariimaa waxfid lahumaa janaaha zulli min ar wa qul rabbi irhamhumaa kamaa rabbayaani saghiira ginnaaw suñu borom na nga yërëm sa ñaari waajur ni ñu la yërëmee bi nga nekkee tu tànk kon man lu ma jëfal sama waajur rek doyut cant gi nag ñëpp laa sant waajur yi jëf ak yi jëfut ak yi am yéene ak yi nga xam ne bëggoon nañu jëf seen loxo juru seen gannaaw ak ñëpp laa sant ñëpp bayuma kenn xale yi insha allahu taala bu ñu bàyyi ko ci baas bi fas nañu yéene dem ca daara ja balaa ñoo jàng xatmu bi danañ leeral maanaam bër gi kañ lay tàmbali kañ lay jeex ndax man lu ma am Touba la jëm fësuma yéenee wute màggalu Touba te sama daaraat la ma ko sose woon muy màggal gu ma mas a fekk ndakaaru dama ko tëj ci du fa des ngëm-ngëm boobu laa am pas-pas boobu laa am jaral na ma ñàkk junni donga barke Sëriñ Touba billaahi wallaahi wa taala wa tallaahi ma wute màggalu Touba sama daara tas moom ma ko gënal ndax Serigne Touba damaa damaa defal loo xam man damaa jomm sama loxo su ñàkk solo si bu dee tegu ci yaramu Serigne Saliou Mbacke kon xaw ma kuy woote wuute màggalu Touba waaye du sama jëmm ji xanaa bu ma faatu woon sax nañ ma diri ci kaw bi di ma yóbbu Touba wallaahi alazim ba tax na danañ wax fet gi kañ lay tàmbali kañ lay jeex balaa ñoo jàng xatmu bi képp koo xamante ne weer wi joxe googu. loolu mooy doxal daara ji ñu ngi lay sant te di euh, jox ndigal nga dem ca taabal jee diisoo ak soxna Mati la nga am nga jox ko ko bu dee kuy andi ay leetar na jàll ci taabal jee Serigne Sambay toog wa turandoo Serigne la fere doon jànge alxuraan bu dee góor bu dee jigéen na yàlla jàll taabal jee soxna Koos Faal ak soxna Astu Njaay toog teg fa bataaxal yi bu dee ku wut ci daara ji renseignement bu demee ci Mati dana ko ko leeral soxna Mati moom. jigéen ju man góor la. bu dee koy jàkkaarloo nag nañu wax ci Masamba. bu dee. kuy jàkkaarloo. bu dee jàkkaarloo la nañu jàkkaarloo ak sëñ Masamba mbaa sëñ Omar Kan sëriñ daara kon képp koo xam ne yaa ngi jëfal daara ji dama fàtte sa tur nag ma ko baal te xam ne ñëpp laa amoon yéene tudd seen tur. macha allah jërëjëf waaye nag daanu dëgër suuf. jërëjëf ñoo ngi gërëm day sant Rafah TV mi fi toog. di jàllale film bi di ko dugal ci net bi. jërëjëf waa Rafah TV di gërëm journaliste yi di gërëm sonorisation borom sonorisation bi di gërëm mboolem koo xam ne rek te nga sa tànk ci bis bi ak ko amoon yéene ñëw te ñëwoo. jërëjëf sëñ Massamba nag bëri nañ na si tënd bokk ak sëriñ Omar Kane. jërëjëf boo xam ne amul ab dayoo. ñun yi nag lu ci dëng. Hmm. sama jëmm ju xeebu ju ñàkk solo rek moo wax tey jéem. waaye damaa amul xam-xam nag te mënu maa wax. na macha allah damaa amul xam-xam te mënu maa wax. wallaay rafet na Guèye. baax na jërëjëf jëfati. jërëjëf jërëjëf ñëpp de mboolem ñu fi jot a jaar ci daara ji di ay ressortissants maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp seen taxawaay seen jëf seen lë seen bu liggéey. macha allah jërëjëf. jërëgeen jëf. jërëjëf sëñ Modou. waaye nag beral naa maanaam sama ñett ñi moom naa leen ak cant goo xam ne kenn amu ko ku dul ñoom. Mm-hmm. di beral ak cant it mboolem suñu daara yi nekk ci daara ja mm-hmm. di beral ak cant sama jabar bi nekk ci daara ja di jàppale mm-hmm. soxna yi. maa ngi sant ñëpp daal di gërëm ñëpp daara ji daal ku fa tàbbal benn pepp xorom wala benn pepp sukkar bi gën a néew maa ngi ñaan yàlla na ko suñu borom rafaatale génn ci aljanna amiin yaa rabbal aalamiin asalaamaaleykum maa ngi nuyu kenn ku ci nekk ju turam ak santam di ziyaar ñëpp di bal ñëpp àq di baal ñëpp àq wax yi nag te naa tey ji duma mën a sori ndax xol bi dafa tooy torop bu ma bëggee wax it wax ji du dem waaye nag paasewul cant ak ngërëm ndax bu ñu dee wax daara mën na noo tàmbali daara ji ci ñaari tuut tànk ñetti tuut tànk waaye tey ji fi daara ji agsi gannaaw yàlla ndax dañ di gannaan doo nekk fa waaye ci kàttane yàlla ci barkante bi ci darajee seexul xadim ak sëñ saali mi ñu tuddee daara ji bu daara ji agsee fii tey yéen tey parents d'élèves yi yéen ko moom yéen ñi fi indi seen i njaboot yéen a yéen a dundal daara ji yéen a màggal daara ji yéen a yaatal daara ji ndax kiy jàngale mën naa ubbi pour jàngale waaye bu amut ni mu jàngal tamit xëñ na ndax ya du yaatu ni war a yaatoo waaye nag sant nan bu baax ba nga xamante ne kenn ku ci nekk bi nga fi indee sa doom la taxoon nga indi ko fi yàllaa nga ñuy suturaal ci loolu ci kattanam ak màggam ak baaxam ak tedd nga am kon nag yéen a cant yéen a amee gërëm li loolu nag am li ngeen ñun mooy ñaan kenn ku ci nekk li nga bëgg sa doom ba tax nga indi ko fi yal na la ci yàlla woon lu gën a kawe sa njott ca loola yal na yàlla dundal xale yi ñoom ñëpp te barke leen def leen ñu ay magi islam te mokkal alquran te seen waajur fekke seeni i njariñ di sant nag ñëpp nag cant gi moom fu sañ moo liggéey di sant nag du man moom la du moom mii la waaw parce que ba ma ko ñoddee indi ñu bokk nekk itam ba yëfi agsi fii mu agsi jamono tey lu sotti am borom dafee bari waaye teew toujours mi ngi ma def kilifa def ma waajur def ma lépp jiital ma ci lu ne lu ci nekk dana yëkkat téléphone am soxna Anta ñu waxtaane ko lu ci nekk bu ma ko nee lii la amatul lu mu cee teg lu ma teg tëral loolu lay tëral lu ma teggi teggi na loolu di ko sant nag cant gu wér goo xam ne am na tàmbalikaay amul yemukaay di sant nag sunu donga yi nekk ci daara ji ndax xale ñoom seen dim bopp ñoom ñëpp kenn ku ci nekk dafa am bëgg goo ma bëgg yëg goo ma ma xam ko ku ma ci gis daw nga yaabooy yaabooy yaabooy kon nag yal na yàlla sàmm leen def leen ay mag-mag ñu barkeel magi islam ñu barkeel ci kàttan yàlla ci barkeel ci salaasam di sant nag mboolem xale yi xam ne jaar nañ ci daara ji ñu ko tàmbali woon ca tàmbali gi ba tey ji fa tabarka ñu yor ay soxna yor daara ji ñee nekk bitim réew fu ñu toll ñu nga may nemmi ko di wax lu baax kon nag du ci man ci ñoom la ak seen i waajur na leen yàlla fay yàlla na fa yàlla fay ñëpp nag waaw ni ko sëñ Modou waxee daal toppaat ci moom bari wax la waaye nag ñu ngi sant waa unité 19 yii ñu bokk nekk daara ji nekk fi waa 19 car macha allah ñëpp a jàpp bu liggéey bi taxawee ñëpp a mobiliser wu boole seen doole ak seen alal ak seen taxawaay ku fi sa doom nekk ku fi sa doom nekk ñoo li nga xam mooy daara jaa ngi 19 rek liggéey la boo xam liggéeyal alxuraan la te yàllaa ko santaane kenn ku nekk mobiliser wu ak sa njaboot tegu ci kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. soxna yi ci kër gi nag amul lu may ndax parce seen bopp la ñu liggéeyal kon nag yàlla mi may fay ku liggéey yàlla na leen yàlla fay te ku yàlla na ta fay du la liggéeyloo kon na leen yàlla fay te barkeel leen te barkeel njaboot gi te ñu fekke te tal di sant nag samay bokk ndax kenn seetaanu ma ci kenn seetaanu ma ci samay bokk ku teew ku teewul maa ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp di sant nag sama borom kër bee nelaw ca ndax ba ma nee moo moo ne cupp man moom moo njëkk a woo sëñ Modou Guèye gi di leen def loo 12 milliards looloo indi xame bi looloo indi daara ji waaw mu ne ko lii laa bëgg mu ne ko incha ko am mu ne ko fan mu ne ko ci a ko mu ne ko fii sax nga koy am nag. loolu mooy loo ba suñu jën si arrêté kon nag mooy fa mu nekk yal na yàlla yësee yéen ma dem yokk ay leeram ak mboolem néew bu mu fekk ko ko fa fekk ci kàttan yàlla ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci darajay Seexul Xadim sëñ sant naa leen lu bari yal na yàlla yàggal taxawaay sant naa sama njaboot gi bu baax a baax ay tout tànk lañ fi nekkoon waaye ku a gis yaa ngi may ziar di ma màggal am looy ko di ko teg ci sama loxo yal na yàlla barkeel leen baax na maa ngi jégalu daal maa ngi jégalu daal. ngi nuyu suñu mbokku yi nga xamante ne ñoom ñoom lañ fi fekk suñu ay rek di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal ngeen mokkal comme seen ay moroom yu toog fii tey bu loolu jàllee ñu nuyu suñu sëriñ suñu ustaaz waaye suñu yaakaar suñu lépp sëriñ Mouhamad Gueye moom sëriñ Saalix ñu ngi koy nuyu bu baax du ay teggin sax ñuy toogandoo moom ci kaw du ay teggin may jël kàddu ci kawam du ay teggin may jël kàddu ci seen kanam waaye da di ndigal moom bu xesee ba jug rek dañuy bàyyi suñ lépp wax lépp lu ñu xam wax lépp lu ñu man xëy na it baaxoo nu wax wala mënewunu wax waaye comme que ndigal la ñu ne nañ ko jël nañ ko nañ ko matale rek incha allah te xam ne lépp kàddu yu ci jub rek ci baaxu suñu borom waaye lu ci dëng rek ci sunu ak sunu mbonte di jiital sunu ustaas yi nga xamante ñoo toog ci kaw ak sunu mboolem sunu ay wajur yu teg fi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay waaw maanaam kaddu daayira bi de moom wala mboolem yi nga xamante ne ñoo bàyyi ko woon ci muy góor jigéen waaye di mag di ndaw mboolem ñi bàyyi woon ci jamono 2005 ak mboolem ñi bàyyi woon ba ci ñi nga xamante ne ñoo fi koo tey manaam du ma ne kaddu cant la wala kaddu goo xamante ne dañ koy jël ngir dara waaye kàddu soññee la. ndax ñoom ñi ngi ñi sant ne ngir ne bis bi dañ ciy taxaw taxawaay bu baax waaye man ci sama gis-gis damay soññee ngir ne ñun defuñu dara liggéeyuñu dara te it mat ndax ñi fi bàyyeekoo woon boo xoolee diggante 2005 ba léegi chaque année di nga gis 10 personnes lu mu bon bon doon di 10 personnes danañ fi wàccee léegi nga calcule diggante 2005 ba 2022 10 fois 10 da lay jox lu toll ak 100 et quelque wala 200 et quelque yooyu noonu yëpp mboolem ñi fi jaaroon ñëpp waxuma la ñu mokkal waxuma la nag ñi jaar ba bàyyi. war nañoo war nañoo mën a nekk nombre personne boo xamante ne ëpp nañ lii ñu toll te it mboolem ñu bàyyi woon ñëpp waroon nañoo mën a bàyyi seen ay jik bàyyi bàyyi seen ay yitte bu bis bi jotee ñu def ko suñu bisu bopp parce que bi nga xamante ne oustaz na ko si ñun buñ doon jël àdduna ak li ci biiram ñëw di ko ko fay mënuñu koo fay mais xëy na li nga xamante ne mën nañ ko mënuñu di ñëw ci daara ji chaque jour di def li ñu mën waaye li nga xamante ne yàlla defal nañu ko tawfeex muy bis bi nga xamante ne daara ji moom la am waaye oustaz moom lay sagoo ñun ñi tamit moom la ñuy sagoo yàlla def na suñu biir benn bis bii la am moom la ñuy gisante di ci namantikoo bu ëllëgee ñu dem ñu am pastéef ñu koy waajal bëgg nañ oustaz ñu la koy dagaan bu tey jàllee incha allah maa ngi soññ mboolem ñi jaaroon ci daara ji te nekk fii bu kenn ñibbi tey 18 heures incha allah wala 19 heures laata mbir yi di tas am nañ réunion ak oustaz loolu nag ñu ci ciy sàkku oustaz nga jox tur bi euh, euh, kii mboolem nga jox leen tur daayira boo xamante dañ koy yor loolu jàllee it suñu biir waroon na mën a defaraat suñu toogaay gën a suñu bopp dama koy wax saa su ne mboolem ñi jaaroon ci daare ji dëgg la nag ay jàmbaar ngeen ndax lu toll bis bi réunion wu leen ko toogee wu leen ko waaye bu bis bi ñëwee day jag la tax moo jag mooy bu ñë bu ñëwee rek ku nekk day beru liggéey ñi nekk ci waañ ba ñi nekk fii ñi nekk fii te loolu réunion wu leen ko organisé wu leen ko man nag gis naa ne bu ñu ko organisé def ko ay réunion waaj waaj ko bu baax a baax dana gën a baax dana gën a sell dana gën a rafet dana gën a taaru tey dana gën a am dana gën a am ab loolu li ñu koy may nag mooy ñu am pësteef am ab dogu bàyyi suñu ay yitte bàyyi suñu lépp bu bis bi jotatee moo xam góor ba ci jigéen bu loolu jàllee damay jiital euh, ak cant boo xamante ne daayira bi moo ko jël jox ko suñu Cheikh Mbaye Khady Gueye mi suñu wax suñu Cheikh Mbaye Gueye cant cant goo xamante ne ñoo ko ko jiital ak soxna Mame Diarra Sarr wallahi alazim ñaari ñooñu bu ñu ñëwoon teg tëj seenub làmmiñ kenn du ñëw fii tey jërëjëf macha allah waaw maam ñooñu ñu ngi leen di sant bu baax ci seenu taxawaay jërëjëf waaye di soññiwaat mboolem ñi nga xam ne ñoo jaaroon ci daara ji bu kenn ñibbi ndax mboolem li nekk fii ci ko war a dajale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 إله الناس من شر وسوسة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا هجة يوم الدين اللهم عافنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المثلات وكفر بتلاوته عنا سيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سوء أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تقليل أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسر أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغن أو إظهار بغير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذبين من كل الحان ورزقنا فضل من قرأه ماديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به القر والسعادة والبشرة والأمان لا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان ونبهنا قبل منايا منا من الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال المنكر ونكير آمين كل الديدان وبيد وجوهنا يوم البعث وعاتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا آمين وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا وسط الجنان آمين يا رب وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أكرمنا بالقوة والقيادة ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربنا قلوبنا وجل أذاننا وزاب غمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم آمين. اللهم اجعله أنيسنا في الوسع وشابنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة وذليلنا في الحيرة وموقرنا في الفتنة عاصمنا به من الزيغ والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم آمين. اللهم اختم بسعادة آجالنا وحقق بزيادة آمالنا واقرم بالعافية قلوبنا وأصوالنا واجعل إلى رحمتك مسيرنا ومعانا وسوس سجل عافيك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك ذاتنا وثقل بك فقرنا وعتقواتنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما ترنا نور سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام aywa bismillah اللهم بلغ ثواب ما قرأنا وما ترنا لرو سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام آمين أيوة. اللهم بلغ ثواب ما قرأنا وما ما ترنا لرو سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والأرواح آبائي وأمهاتي وأزواجي وذرياتي وأصحابي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولأرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة na ci faj ñëpp faj dugal seeni aajo ku am aajo dugalal ci biir ku am aajo nu mu toll rek dugalal ci biir yàlla yàlla faj aajo yëpp macha allah sëñ maam Thierno Mbacke muy tëj ñaan gi cheikh bi bismillah Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer